Monsieur le Préfet, dañuy commencer d'abord di sant di gërëm tous les responsables de Kaolack yi nga xam ne yëpp ñoo ñu jiitu ci action bii nii ñu def tey di ko rafetlu ndaxte dafa bokk ci li nga xamante ne nii moom autorité bi sant ndaxte lu ñu gëm mooy ne réew dafa am foo xam ne bu fa tolloo soxla wuñu kuy waxal réew mi mais dañu soxla gis ñi nga xam ne ñooy taxaw ne lii la ñu mënal réew mi te yaakaar naa ne situation yu mel nii nii ñu am bu ñu xoolee je wax na ko léegi du kaoula kese du Sénégal kese mo ci tollu buñu xolé xoolee li ñuy gis ci image yi ñu xam ñuñ fa gis taxawu ñu di wax mais ñu ñu gis yëpp ñu ngi taxaw di jëf di jëf manam ku mën li nga def ku mën leneen nga def mais kaoulak mo soxla tay ji ni Domi kaulak yi ku nek mun a ñëw taxaw ne lii waral teji ni nii tangki tànk yi ñu jóg gis ne kat am na représentant de l'administration centrale représentant de monsieur le président de la république ñu ñew nak en tant que républicain ne dañuy jël lepp jébbal lako ko ko sa loxo bu ngeen defee sen recensement ak les experts ñi nga xamné ñoko ñoo nous avons facilité en charge l'intégralité des sinistrés de Kaulak. Nous avons fait kit. kit Chaque famille a 50 kg de riz. Chaque famille a un bidon de 5 litres d'huile. Chaque famille a un carton savon de 18 morceaux. loolu mooy li nga xamante ne ni monsieur le préfet moom lañuy dimbalee famille yi waaye nag su dee loolu am na te nit ñaa ngi ci biir ndox mi te gis nañ effort yi nga xam ne moom la si état bi di def yëpp ñu ne léegi est-ce que loolu mun nañ si dugal suñu loxo ñu xool gis ne kat bu ñu waxtaaneek yow pompe yi doy na waaye pompe yi am na ci yoo xam ne ñu ngi doxe courant loolu directeur général rek réglé na ko am na fi pompe yi nga xam ne gasoil la ñuy doxee léegi ñu ne ne ñëw ñu jël six mille litres gasoil dinañ la ko jébbal ci sa loxo pour mu nekk lu nga xamante ne nii mooy dimbale nit ñi pour ñu gën a mun a pompe ndox mi waaye tamit ñëpp xam nañ ne sama ben xaritu ndàndar mu ngi fi sax xamna naa ne dinañu sanni xeer encore une fois kaolak dekk weñ la kaolak dekk yo la motax ñu ne mënuñ bay aspect bobu tamit ñu indi ay produits phytosanitaires yo xamne ne nañ ko jébbal service d'hygiène pour que au moins ñu mëna pomper kaolak et produits yu ñu indi ku ñu ko jaay nee en principe warna mëna permettre ñu def au moins trois passages pour lak yep donc produit phytosanitaire yaangi ni monsieur le préfet di wax rek ne li dal moy li nga xam ni mom lañ mënul wor ñàkk def. ñu sante également son excellence monsieur le président de la république c'est le programme d'assainissement de 15 milliards bu mu initier xëy bu demul won mbir mi dina doon mën a garaaw mbir mi dina doon gëna a mais comme def nako ni ñu commencé mu wañi coono bi def ba ñu pomper ndox mi kon yaakaar naa ne suñu mënee jox confiance monsieur le président fii ak quelque at bu soobee yàlla lii dina nekk un mauvais souvenir au niveau de Kaolack. kenn ci ñun ñu di ko wax euh, Pape bi Bitèye moo am yéeney jàpp ci xeex bi nga xam ne ci la ñu ne ci wàllu mbënd mi. ku nekk xam na ne moom mooy directeur général bu Sénélec waaye dafa dafa dafa dafa feddali dafa fésal ne lii mu def du directeur général bi doomi Kaolack moo bëgg a delloo mbattu ca ndaala ndax xëy na bu doon ci na bële rek dafa am fu mu bokk dafa am fu mu far mënoon na koo joxe joxe yi maa aye wala sama waa kër ñoom ñoo aye waaye li mu ci jublu te yëkkati lépp jox préfet mooy wax ne mbir mi du am xejj du am seen képp ku nga xamante ne nii rek ndox mi am na lu mu la yàqal am naa yéene fekk la fa nga ne ma jox la as lëf xëy na nag bi mbir mi dooree ak léegi bay defal yàlla yu bare doomi Kaolack ay góor ay jigéen ay mag ay ndaw kenn ku ne mi ngi ciy def li mu mën bosam bii nag buñ koy taarixal ci bésu tey bi ci weer wi moo mujj walla moo mujjandi waaye nag bu dee ci dayo bi mujjul de ndax lépp si sama loxo la jaar mën naa wax ne ci lim ci limat mooy bi nga xam ne moo ci gën a yaatu loolu wax dëgg yàlla euh, dañu koy seede te yàlla rekk tax